ñun jigéen ñi bala ñoo jaaxle si waañ bi rek weeru koor yegg si war a bégal njaboot gi goro yi ak xarit yeeg am di jàmm yi loolu tax na ñu war a tànn ay produits yu sell ngir togg yu mucc ayib man Sofia laa taamu si koor gi margarine Sofia bi ci pot bi mooy tànneef bi bën ci bépp togg su dee ci waañ bi ngir cafka ak melokaan yu amul fenn wala ci table ndogu bi ngir ay mburoog bër yu kenn mënuta muñ Sofia fu mu jaar ay tàqamtiku rekk fay des kenn du mer Sofia bër bu bari feem mooy feem bi mën ci koor